Pape lundi ba tey demu leen benn couverture demu leen benn activité politique ndaaj mi lu tax ña doon politique di leen invité ci activité ñoo talul kenn fu mu ne nii mais Pape lundi la wëre bi di dem këng waxu mag dem daan taali pap ña fi newon am nañ parrain yépp lundi mu leer te pap kañ tay le jeudi jeudi ak vendredi ñoo fi dess ci jour ouvrable manam loy régler ci administration bi dem régler ko samedi ak dimanche da ngay ñëw fekk bureau yi lundi fajar mbëkkante bi paap su dee am nga dem conseil constitutionnel war ko couvrir ah tey la Pape, mara ma tax vendredi mo jour ouvrable mané pap lundi am nga ku war dem conseil constitutionnel pour couvrir affaire parrainage yi na h fa du matin fekk parce que man man dégg naa am ay parti yo xam ne dañuy fanani, ah dimanche si guddi la ñuy dem pap loolu dégg naa ko pap ma si yokk kuy dem na nga ànd ak huissier de justice ah awa, soo joxee 150 feuilles

njoolul gàttul yaatuwul pap ku am say parrainage demal fanaani dimanche ah ah en tout mooy am foofu de pap yónnil xale bu am fit waaw yónnil caméraman bu am fit nga jox ko nag provision ndax dana teel a xëy dana guddee wàcc te côté conseil constitutionnel boobu kenn du ko jaay Pape dangay jël oto bi def si ay café ceeru café Touba def si mburu bu bari def thon def chocolat def ay nen yu baxal def ndox pap utal leen ay chargeur yóbbu chargeur batterie yóbbu caméra paab te nga jël affaire yi déménager ko ñu defee foofu direct ak matinal bi yëpp lundi yóbbu régie bi yóbbu lépp ah maa ngi wax PCA PCA jëndal ñu car car régie PCA jëndal ñu car régie nga am fu ñu toog dañuy def direct denk naa la ko pour si priorité 2024 bi ndax PCA yow ma fi morom <laughs> pap pap dimbali mu waaye ma chronique pap voilà <laughs>